wajalilaahi niñ ko baaxoo defee rek at mu jot bis bi nga xam ne moom la kuréel bi di amal di ko waajale bis bu mag ba muy màggalu tuubaa gi muy bisu raabi nga safar ñu di ko amal di ci waajal bisu màggalu tuubaa gi te kuréel liggéey gu tedd ki baaxoo ko ànd ak at mu jot waa Touba ci kanam rawatina commission sociale bi ci lañu dellusiwaat fii di yëkkati kàddu yi ak di saafonte ak ñoom di leen fàttali bis bi nga xam ne ci lañu ñu baaxoo ànd ak ñoom ñoom it ñu baaxu koo ànd ak ñun di lu ñu xam bu baax a baax bis booba it di bis boo xam ne liggéey bi yëpp génnul daray xam-xam te ñu xam ne it Touba ca kanam seen liggéey lépp mooy lu jëmale dëkk bi kanam kon képp koo xam ne dangay ngay yëngatu lu jëm ci dëkk bi li gën a jàddu ci li gën a jaadu ci yow mooy nga ànd ak ñi nga xam ne seen liggéey lépp ñi ngi ko ñi ngi tudde seen bopp sax Touba ci kanam kon képp koo xam ne da bëgg lu jëmale dëkk bi kanam rek yaakaar naa di ànd ak ñoom ci li ngay def loolu moo waral kuréel liggéeyal ku tedd ki di ànd ak ñoom at mu jot saa yu bis bi jotee ñu ànd ci ak ñoom ñoom it ñu ciy taxaw taxawaay bu rafet macha allah bis boobu nag di bis boo xam ne dañ ciy waajal màggal gi muy ñeenti fan ci weeru safar incha allah di fa amal ay activités yoo xam ne it dara génn ci liggéeyub sëriñ bi ak yaatal ak tisaare am njàngaleem ndax loolu mooy liggéeyub kuréel bi ñu di fa amal ay jongante jëm ci soññ ndaw ñi ci jàng ak jàngale jongante yooyu nag mooy jongante li ñuy tudde xefsul motuum mooy mokkal téere xam-xam yi mokkal téere xam yi nag jubluwaay bi mooy soññ gone yi ci ñu jàng te li ñuy jàng it ñu def ko ci seen dënn ba bu ëllëgee buñ gisutoon benn bind man koo tari ñu bindaat ko ren ñu tànn téere bi nga xam ne mooy masaalikul jinaan di yeggali lenn ci ñaareelu xaaj bi nekk noonu itam di def li ñuy tuddee euh, Moussa jala ci xasida yi mooy mokkal xasida yi di ko tari nekk noonu itam histoire yoonu it mooy saqaafa muridiya laaj ak tontu lu jëm ci yoonu murit loolu it ci bis boobu dañ ko fay amal muy ay concours yoo xam ne gone yi koy def seeni at bëriwut waaye li ñu ci jublu mooy soññ leen ci ñu gën a fonk jàng ak jàngale ak mboolem bi ci aju xamal leen nii ne li ngeen di def lu am solo la loo xam ne waru leen cee teggi seen tànk mukk ñu fas yéene ànd ak ñoom suñ suñ defee musaabaxa yi ba noppi buñ noppee ñu neexal leen jox leen ay neexal yoo xam ne moom la ñuy waajale ñoom seenu magal ci bis ba it am na ci li ñuy tuddee sargal sargal nag jubluwaay bi mooy wane lu baax li nga xam ne moom moo nekk ci dëkk bi kilifa yu baax yi fi nekk ak ñi nga xam ne tisaarikati xam-xam yi nekk ci dëkk bi di jàng ak jàngale ak yare moo xam waxtaankat la moo xam jàngkatu xasida la moo xam lu mën a doon ak daayira boo xam ne ab liggéeyam dafa fes lool ci liggéeyal seexul xadim lu ci mel ne Touba ci kanam yaakaar naa jotoon nañ leen a sargal ci at yi weesu ren nag ñu tànn na sargal incha allah sëriñ Mbacke Abdourahmane di ku ñu xam lool ci liggéeyal seexul xadim ci lu jëm ci xam-xam ak njàngaleek waxtaan ak yu ni mel daayira bi ñu tànn yit mooy daayira Touba assistance médical ñoom it ñuy ay jàmbaar lool ci liggéey bi kon ci tànk yooyu la ñuy ñëwee fii ci eh, Touba Touba ci kanam rawatina ci commission sociale bi nga xam ne yàgg nañoo ànd ak ñun liggéey bi nga xam ne moom la def ci bisu Rabian Safar di bis boo xam ne it dañ ciy waajal bis bu mag ba mooy màggaluk Touba kon kàddu yooyu rek lañ doon yëkkati di leen sant bu baax a baax nag di soññ murid yëpp itam Euh, ñu jàpp bu baax a baax ci liggéeyu Touba ci kanam bi ndax liggéey la boo xam ne ku leen yëgal loo xam ne daa jëm ci luy jëmale kanam dëkk bi ñoom ñoo cey gën a taxaw ndax dañuy jàpp ne ñoom ngay jàppale ndax loolu mooy seen wutur moo waral nag kuréel liggéey ku tedd ki bi ñu jógee ñu xam ne ñoom lii seen wutur moom lañ bëgg a ñu jàpp ne ñi ñi ñi ngi jox benn jéego ci lu jëmale Touba ci kanam ñu ne kon dañuy ñëw ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo tudde noonu seen bopp ngir ñu taxawal ñu ci liggéey bi te jàppale ñu ci bu baax a baax kon ñi ngi sant bu baax di leen sant ci wees woon yëpp ak yi kanam yëpp itam leen tàllal loxo yi di xamal itam kuréel bi ubbeeku na ci seen kanam ci lépp loo xam ne rek bëgg nañ ko ànd ak ñoom ci ab liggéey incha allah ndax yaakaar naa ñu nekk ci membre ci kuréel bi ñëpp it bokkaat nañ ci biir liggéeyu Touba ci kanam bi ndax lépp benn la rek waaye nag euh, cant gi moom mënut a ñàkk ndax ànd giñ ko yàgg ànd ak ñun ci lépp rek kon ñi ngi sant bu baax a baax baax di ñaanal suñu kilifa yu baax yi ñu fekk yëpp suñu borom dëgëral leen baax di am mbégte bu baax nag ci seen teewaay fii jënoon bool nu ci liggéey bi ngeen ci liggéey te muy liggéey bu tedd ki mu liggéey boo xam ne ñun ñëpp la war kon ku ko jël di ko liggéeyee bu la ci wooyee dalaa bëgg a dimbale ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di wax ne rek liggéey la boo xam ne jàpp na dañ koy teewoo lool fi toll nii ndax dafa mel ne bu ñu dee seetlu màggal gi activités yi dañ ci xaw a fàttewaale ndaw ñi surtout wàllu xam-xam nag loolu moom day mel ne euh, wax dëgg ñoo ngi koy door a teewlu ci seenu dikk kon lu am solo la ndax lu mel ne màgg gi liñ ci gën a yittewoo mooy xëy na li ci gën a ñàkk solo te mooy lekk ak naan ak solu ak yu mel noonu kon bu nga ñëwee di ay ndaw am yitte beneen bu gën a kawe loolu loolu xëy na ndimbalu sëriñ bi la kon ñoo ngi ciy bëgg bu baax a baax a baax te fas yéen ànd ko yéen ba ngeen am ci ndam incha allahu yi ndax li ma dégg ni ko expliquer lu am solo la ndax dafa mel ne yi ngeen bëgg a def ci activité yooyu mën nga ne yooyu mooy yoonu murit mooy almutuun alxasaayid wa taarix wa taarix taarix almuridiya ñett yooyu boo ko dajalee mooy xam nga yoonu murid gépp te ñu gis ne tamit am na ci gàllankoor yoo xam ne am nañ ko mooy ndaw ñi xamuñ yoonu murid mooy lan ñu ëpp ci ñoom fi mu ne ko lan la fi mu ne doon wax mooy kon taarix bi sax jàpp naa ne dañ a gën a insister nit gën a xam lan mooy yoonu murid ak lu mu jóg ndax bu ñu seetloo day mel ne lépp ci ne la ñuy def mu li gën a fës ci activités yi mën nga wax ne bokk ci yoonu murid da cee da dugg rek kon day baax yéen ñi ngeen am mission leeral dëgg-dëgg njàngale mi lu mu doon ak fan la war a jëm kon ñoo ngi koy rafetlu bu baax eh, di wax ne daal Touba ci kanam moom ni nga ko waxee rek léegi mooy yitteem mooy jëmale Touba ci kanam te ab dëkk ngir mu jëm kanam faw xam-xam jëm fa kanam rawatina dëkk boo xam ne xam-xam ko sos ak diine kon képp ku liggéey Serigne Touba lu mu gën a jëm ci dundal xam-xam xamal ne liggéey ba gën naa jëm ci bëgg-bëggam kon li ma eh, gis rek mooy yéen yéen bëgg boobu Serigne yàlla na ci yàlla dimbale defal leen ci ndam te xam ne Touba ca kanam mi leen di tàllal loxo ci yeneen sax activité leen gunge ndax damay jàpp ne lu mel ni bu taxawee war naa mën a jëriñ nit ñi ci yeneen côté sax yoo xam ne day day day nekk rek xaar ba safar jot nga xaar ba rabi jot nga def itte bàyyi ba déwénaat jàpp naa war ngeen a mën a muy dem ci année bi yëpp ndax Touba kanam sax ren ji am na commission bu ñu tudd commission ndaw ñi daawar bi ñu koy taxawal ñu bëree bëri tudd nañ leen ci ne yéen man ngeen ci am njëriñ ndax ay ndaw la ay ndaw la yoo xam ne dañoo toll si jàng diina toll jàng yoonu murit kon ñu ngi leen di bàyyi loo xel loolu bu baax a baax ngeen di leen ci gën a dugal ci seen liggéey di leen gën a nos di gën a jariñ di leen gën a xamal dëgg-dëgg Sëriñ Tuubaa lan moo doon am jàngaleem loolu moo tax commission boobu jóg kon ñoo leen ci bàyyi loo bu baax a baax di ñëw Touba ca kanam nag wax dëgg yàlla dafa jàpp ne lii ku koy def moo ngi koy defal kon lépp moo ko waroon a def kon li nga xam ne dina ko te ko seen loxo te yow nekk rek musharaka ramziya lay doon rek waaye du loo xam ne lu am solo la ñu def ko nekk ci turu social bi nga xam ne wàllu yu mel noonu moom lañ koy jaarale ci jàpp jàpp ndarog si moom si motulaa fa ak ñu àndal liggéey bi kon tënk rek ñoo ngi am mbégte bu baax a baax ci turu sëñ Habib turu Touba ci kanam turu sëñ Mountakha turu mboolem murid yëpp rek di rafetlu liggéey bi ngeen def